suñu borom tabaraka wa taala ci jaar ci naqar yi ba àgg ba ci nag bànneex ba dootoo am naqar mukk ay bànneex boo toppee bànneex yi ba àgg nag muñ moom indi lu bare bare bare bare bare mun mettitu yi ñu tere nga bàyyi ko yi ñu digle nga muñ ba mën koo def te muñit ci jéem rafetal defin wa jéem koo sellal bëreeg seytaane ba bu def gi jotee mu naan la am nga jot bàyyil ba waxtu sàngam bàyyil ba nangam noppalul tuuti boo ko téyee ba jóg def ko mu di la gaawtuloo boo góorgóorloo bëtt ko ci loolu boo àggalee mu ne la yow yaa fi gën di la wan sa bopp ne la yow lii nga man sa morom yi mënuñu ko yëpp yàqal rek li ci jublu gannaaw moom yooyu yëpp mu ne koy xeex moom am na solo lool li ngay teg sa bopp ci naqar wala tiis ngir yàlla tax na mu gën a tiisa ci sa bakkan sa daraja gën a yëkkati ko ëllëg ci lañ la gën a ñàggile ñàgg yi nga xam ne fokk nga bett ko ngir am yërmande yàlla ndax sa su fekkee ne suñu borom tabaraka wa taala dafa àjjana ñagi ko ay naqar àjjana lañ tey wax te dafa yaatu jubluwul rek béréb bu neex ba nga xam ne boo fa demee lépp loo bëgg am ko am na àjjana ju jiitu àjjana jooje ak àjjana ju ne ca gannaaw àjjana jooje àjjana jooje mooy bala ngay dee nga àgg ci suñ borom neex ci yow def ci sa xol bànneex boo xam ne moo la a adduna li ci biiram bu ñu la doon jox téeméeri milliards te ñu rocc ko ci yow ñetti fan rek delloo la ko doo ko nangu. waaw. xam ne da ngay dem ba mu wóor ne dee gi yow nga janloog moom yàkkamti mu agsi ndax la nga séen mu ne ca gannaawam te gën a neex lu ma doon ci àdduna. léegi ci boppam bu malaayika yi ñëwee def ñaari sàppe yoo xam ne ruu ci diggante ñaari sàppe yi lay jaar jëm ca bàmmeel ba xeetu teraanga wu nekk xeetu lu rafet lu ne ay bu xel mënul xalaat ànd ak teraanga ci gën a màgg ak bànneex ba gën a rëy roo gi gën a leer jant bi du am benn pàkk niti bàmmeel ba teraanga ja koy nekk ca bàmmeel ba di lu xel mënu la xalaat di ko nekk fa di sallallahu alayhi wa sallam ne ci bàmmeel genn wàllu àjjanaam ndax jëmm ji mi ngi ci bàmmeel bi rooga ma nga ca jox picc yu werte yonent bi di wax yi fër ci dëri àjjana ba ngiroon jot ñu wàcc ñibbi ci peeri aras fanaan foofu loolu nga xam ne moo genn wàllu ajjana xéewal googu ak teraanga jooju di ko fekk ci bàmmeel bëgg du bëgg lu ko dara lu ko fàttali àdduna lool bu bëggee bu amee lu mu fi fàttali muy jaamu yàlla yi mu fi daan jaamu xam ne béréb yi nga xam ne ci la doon jaamoo yàlla di ko daf koy seede yow mal xiyaam bu taxawee béréb yooyu nga xam ne daañu ko jooy suuf sum taxawoon daan ko jaamoo yàlla ak asamaan si ko tiimoon dégg ngeen sëñ bi di wax ci xaqa tabki la raadi alayhim asamawaati gannaaw ñooña fa ñu àggoon tax na bi fi jógee xeetu jaamu yàlla daan am suuf si di ko ñàkk mu metti mu di ko jooy asamaan si si ko daan tiim noonu mhm. xam ne ma koy ñàkk di ko jooy yàkkamte yowmal xiyaam ñu seedeel ko jëf yi ñu ko fii ñu fekke tax jëf yi lépp loo gis ci àdduna rek am na roo gu bokkul ak roogu doomu aadama roo goo xam ne du ko may yëngu ak jóge fi jëm fee ak lekk ak naan ak wax waaye may na ko muy yëpp lépp luñ def ci kawam ak lépp loo xam ne wax na koo seede ëllëg boole koog di sabbal suñu borom waaye min shay'in laa yusabbihu bihamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum yooya nag ruu googee leen suñu borom jox nga xam ne ñaari anam la def biir bitti bitti bi nga xam ne moo féetee doomu aadama yi ñu di ko gisiinoo lu mënul a yëngu mënul a dégg du yëg lu metti du yëg lu tàng du yëg dara ak roo nga féetee suñu di sabba yëg màggug suñu borom gi te du ko yëgati mukk bu keroogee wet googu ay wëlbatiku di seedeel jaam bi suñu boroom na nga ko seede sax ndax loo xam ne du fen du moy du jàdd yoon bu seedee ñu nangu ko te mooy yi nga xam ne duñu wax muy suuf si muy doj yi muy garab yi muy bàyyi na yi nit ki nag boo fii buy génn àdduna day jàlloo teraanga yooyu yëpp mooy la muy njëkk a jot waaye day jàlloo ni comme ay safaani ci ay jëfam yëpp safaan yi day jànnoog moom du ko naqal du ko métti du ko ragal fekkee ne liñ ko jéggal la ñu nëbb ko ko dañ ko teraale ñaari sàppe Ibrahima yooyu nga xam ne